mbokk yi ak xarit yi ñuy ñëw ci troisième point bi di déglu ki nga xam ni moom la ñuy wax Pape Djibril Fall ay kàddu yoo xamante ni yëkkati na ko ñu ñëw joxe ci sunu xalaat je vous en aw autre chose mais ñun sénégalais yi dañ ñuy déglu dañ ñuy bàyyi xel dañ ñuy xaar lool moo tax sax ngay dégg bu dara xewee ñu ne Pape Djibril Fall est-ce que wax na ci est-ce que dégg nañ ko loolu suñu borom moo ñu ko defal ñu ko ci santé fas yéene ko ci liggéeyal nag ci jaamam ñi teg ko ci njub teg ko ci intégrité bu mat sëkk teg ko ci lépp yaa ngi fàttaliku peut-être que. Pape Djibril Fall macha allah Pape Djibril Fall nee na yenn yi. sénégalais yi dañ ko ci xaar bu mbir xewee ñu ne Pape Djibril Fall lan la ci wax wala ndax wax na ci muy kàddu yi nga xam ne moom la Pape Djibril Fall yëkkati waa lii nag wax dëgg fa yàlla amoon na donc buñ nee amoon na kon lu romb la waaye dafa mel ni Pape moom yëgugut ni loolu lu amoon la léeboon luppoon amoon na boobu Pape Djibril Fall li mu doon wax dafa leeroon ci sénégalais yi ñu gisoon ni Pape Djibril Fall kat waxam jar nay déglu parce que lu ñëw dana ci joxe xalaat boo xamante ne bi xalaat bu am solo ñu koy déglu wax dëgg fa yàlla nit ñi dañ koy déglu di ko bàyyi xel bu baax a baax di ko teewlu depuis mu jóge 2S jóge 2S daal de dem fi nga xam ne mooy TFM nekk ci plateau ba nit ñi di xaar ay intervention di ko déglu di ko bàyyi xel mais depuis quelque temps Pape Djibril Fall wax dëgg fa yàlla nit ñi xaaratuñu la parce que li tax nit ñi xaaratuñ la rek bu fekkonte ni nit ñi ñu ngi lay xaar bu doon ci jamono jooju la nga ñëw amee même discours yooyu boo taxawee ci place de l'Obélisque di yëkkati say kàddu ci askan wi tekk lañuy def ngir déglu la may la nopp te xam ni kuy wax wax ju am njariñ a ngi muy kan Pape Djibril Fall waaye nag depuis quelque wax dëgg fa yàlla ràññeetuñ la Pape Djibril Fall nag dafa am lu daloon benn waykat Elvis Elvis dafa xewi te yëgut ni xewi na loolu moo dal Pape Djibril Fall Pape Djibril Fall moom donc moo yëgut ni nit ñi pare nañ ci ay mbiram parce moom ci jëmmi boppam li mu yabee woon nit ñi maanaam li mu leen jaay bi nit ñi ñëwee gisuñu ko Pape Djibril Fall damay wax ne maanaam dafa def publicité bu rafet def kii yoo xamante ni bi nit ñi gis ko daal ne ah kii ya jara wutal si bi ñu ñëwee nag lañ leen wanoon ci bunt bi kii ba ba ñu duggee si biir fekkuñu fa marchandise mi nga xamante ni bii moom la leen wanoon ne leen kaay leen ma jaay leen maanaam li mu ñu wan bi jot livraison jotee la mu ñu indil bokkut ak li nga xamante ni bii moom lañ doggi voilà Elvis a ngoog Elvis mi dafa demoon ba toll jëmmi jamono mu xewwi te yëgul ni xewwi na Elvis dafa demoon ba ménager am da ko doon créer loo xamante ni bii tey maanaam buy génn dañuy def mise en scène boo xam ne moom dong moo ko yëgut bu génnee gars yi di signer ay autographe ak affaire yooyu daw si ñëw te fekk ne ñooñu ñu ñuy fay lañ Elvis pour moom mi ngi au top nekk ca kaw ndekete Elvis génn na géew gi benn bis la ko benn xaritam seet si wax ak moom ne ko bon léegi doxatu mais mu ànt ak xarit bi génn mais kenn xamu ko donc loolu mooy li nga xamante ni bi moo dal ki nga xam ni mooy Pape Djibril Pape Djibril dafa nekkoon ci ay discours yu mu jàppoon di ko discours di ko wax ay xalaat yoo xam ni moom la daan joxe sénégalais yu bari topp ko ci li nga xam ni moom la doon wax waaye bi mu bàyyee loolu dafa mel ni tamit sénégalais yi toppuñu ko ci leneen li mu ne loolu moo sabab li koy dal di ko li ko dal di ko dal donc defe naa ni bu ma doon moom euh, damay teel a delluwaat ginnaaw bu ma ko doon conseillé dama koy wax ne ko mu teel delluwaat ginnaaw te xam ni fi mu nekkoon baax na jéem a fexewaat nu muy def ba juboowaat ak aw askanam parce que loolu mooy li ëpp solo juboowaat ak sa askan. bu boobaa peut-être que ni ndaw nga mën nga ami li nga bëgg yàkkamti baaxul te defe naa ni nag loolu mooy li nga xamante ni bii bu ma xoolee mooy li ko dal ci mbir mi dafa mel ni dafa bëgg a forcer loo xamante ni bii jotagul waaye nag mënoon na am sax lu ëpp tey li nga xamante ni bii moom la yenn politiciens yi am mënoon na ko am. ci kaw mu toppoon ligne bi nga xamante ni bii ci la nekkoon parce que mi ngi nekkoon ci ligne bu baax mais fi mu nii fi mu jaar jàpp naa ni euh, terrain la boo xam ni baaxul parce que sénégalais yi boo seetee ñi koy wax ñëpp yenn wax yi koy naqari tey ñoo ko daan commentaire ñoo ko doon tungoom ñoo ko doon yëkkati ñoo ko tegoon fu mu mën a yegg ñoo ñoo ko fa yóbbu woon léegi ñooñu bu ñu demee ba bàyyi ko rek na xoolaat ndax ci li mu ne woon ma nga ca ba tey waaw. parce que defe naa ni ñooñu bañ lay tungoom moom xamoon nañ ci li nga ne waaye bi ñu demee ba xamatuñ ci loo ne bàyyeetuñ la xel comme ni nga ko yaakaaree mbokk yi ak yi ñu ngi amaat mbégte ak kontaante di nuyu ñu nekk ci xarala gi alaaji Modou Diouf Abdou Top Ablaye Diallo ak Fallou di gërëm sony bu Diop directeur programme di nuyu ñëpp ñi nga xamante ni bi ñu ngi ñuy teewlu ñuy joxante dig daje beneen yoon ci l'émission des émissions jërë ngeen jëf